Elhadji Ousseynou Ndiaye laajte moo di ku jëkk Sénégal kan moo ko war a jiit gannaaw élection yi nga xam ne daal moom la génn njiitu réew mi nee ma président Macky Sall ki topp moom muy Idriss Seck nee ma ndaamal ka jor moom moomee ndax mun nekk ki nga xam ne nag moo jiite ku jëkk Sénégal yéen bi duñu xamal ne kay du moom dong ndax ki nga xam ne nag moo di Ousmane Sonko waaw moom Sonko Sonko bi jamono ji ko neexee place boobee mën na ko xëccoo ne la mu ne faay jéego yu ràññeeku Sansar li moom la mu gis moo di jamono ji Idriss a a nekk moom la ko yitteel moo di coup place bi nga xam ne daal Aïssata Sall Sall yëkkati na ko waa di xam ne jamono ji yi anam daal élection yi nga xam ne daal day bëri ci Sénégal nañu ko wàññi benn yi daal ñu daal leen di taqale boole leen ñi nga xam ne daal a ñoo koy wax ki nga xam ne nag moo di Moustapha Niass la bëgg bëgg a xamal ni kay jamono ji yi nga xam ne daal génn ma nga koy taxawal ngir juróomi at yi nga xam ne moo ko des ci bopp Sénégal waaye nag Macky mi ngi ci pression bu metti de yéen bee ko wax ndax élection yi nga xam ne daal moom la génn ñii nga xam ne daal ñoom àndaloon ci élection yi di ñu xamal ne kay jamono ji muy daal bu Guinée daal réewum Sénégal premier ministre bu Guinée na dem jëli ki nga xam ne naka moo di Karim Meïssa Wade mu andi ko ci réewum Sénégal réewum Sénégal ak i doomam yéen kaay bi di l'Observateur di ñu xamal ne kay jamono ji benn doomu réewum Sénégal la faat fi nga xam ne naka moo di Angleterre ñaari sénégalais ñoo def jëf ju ñaaw yooyu mbir yooyu nag ma nga xewee ca Angleterre jamono ji nag ñi nga xam ne naka ñoo nekkee foofa muy police ba ña ngay enquête topp mbir moomee bëgg xam mbir moomee lan moo ko waral